aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahman irrahim barke xadim Mustafa ma jokkañ waaja daaway ngeen ji yonnen ba yonnen fal ko muy xut bu boroomam ma jokkañ waaja daaway ngeen ji yonnen ba yonnen fal ko muy xut bu boroomam li tax way wi wolof tawaroon de yaaram dama nar gaay jàngul xam ma kañ ko taaway ko ndax tamu dolli may may géwal sañ naa wëreeluy kañ boromam ma nettali fi jaloore te sulli fi ta wax xar baax yu tax ngeen xam ta xejji ay yàlla fal xam nañ maqaamam ca xar baax yaag ca may yaa xam boromam ca walli yaag ca xawsu ya sax fa diiwaan ca xutbu ya ak ña daawi tag boromam ña xam yàlla ak xam yónnen ca baawam ba tey kenn jaaragul fa mu boromam te wax ji moo ko wax ba ko noon yo yóbbo ku dingat wax ji mu juyoog boroomam ca géej ga la làmme ba fekk muy géej mu tànk leeri xëy bu ya ca géej ga la dàqe ki gaayam ba ñuy maaj muy taxaw fara tey boroomam ca géej ga la moome mbootum kun ci baatin bu noon ba fa beekanoo mu ni kun boroomam ca géej ga la Bàmba tijjee ndam bi xam-xam ba faf yor àll way xalim ak boroomam ba xàgg ci yàlla xàgg ci ngan ji yónneen ñu sopp ko soppi léppam muy boroomam saxal foofee ji xëri bakkan ci ay xat di boole tagg ak julleeg wéetal boroomam ba faf sey mel ne suukar far ci yoon nen di moom muy moom ci baatin cey boroomam ñu bokk ko fal tofal ko ngërëm mu fab kun ñu wammat ruuya jox ko mu jox boroomam di kenn ku ñépp xam foofee ci baatin tubaab ya di bañ se di yi boroomam mu faf di jant faf tiim ñépp dunya di taalif téere yuy sellal boroomam malaaka ya seere pal gu am fa diiwaan mu fal ay xutbu yuy dee ak boroomam balaa la fa xam ca piyan ros ci baatin ñu diisoog daam te muy jësi boroomam te mooy wutaatu yónneen far ci kaw suuf kun ci lépp lu soob boroomam mu làq ngërëm ci zahir ak ci baatin maqaamaam fawqa mbooleem ñuñ boroomam sëriñ Tuubaa di maanaam dex ku dem duy ku soobu ne bu génnee xam boroomam tuuba di maanaam dex ku dem duy ku soobu ne bu génnee xam boroomam ku soobu te wey taxaw ya feesal ci ay leeram ba faf di duyal moroomam ku soobu te wey taxaw yoonam ya feesal ci ay leeram ba faf di duyal moroomam ku sóobu dex na xam ndox dof bi yeewul tawattum ndox lewet na te weex ci biiram ku sàggan sànku faw talab te doo duy te doo set doo setal doo xam boroomam meloy Bàmba ngi waaju xamul na dégloo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 diggéen nekk ruux ci tuskare jox boroomam diggéen nekk ruux ci tuskare jox boroomam di ku ñépp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñépp faale ko moog boroomam ku mel ne man jàngul liggéeyul mu seexal sol ko xam-xam moog boroomam di fekk murit bu dof bu tilim ferul baax mu fóot ba mu set tofal mbooloom boroomam meloy kaw yaak meloy biiram dëppoo du dégle lu bon du digle ku dul boroomam du moy ngir tiit du bew ngir bég rëy rëy du bëgg du bañ du faale lu dul boroomam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 du yeexal wenn waxtu te la fay faat la koy wax raw na montor mooy boroomam du ñàkk ba tax mu bot di kuréel ya koy laaj du ci xalal lu dul téerey boroomam du dox di tëjoo dëkkaaleem ci ay kër bu weetaa mang ca yunnen mbaa boroomam du dox di nelaw ci ay lal guddi cey du lekk ba regg day mus ngir boroomam di far ay muy di gàddu tiis ci aw nit di sotti may di jël sañcu boroomam bu nattu jugaa ba jëm si ci ay njabootam mu dër dër loo ko ngir xànd ak yërëm naw ndaw xamal leen yoonu baatin teral naw mag ba jébbal leen boroomam yafal nay mbër tabax nay kër ci suuf si xamal nañu sàkku woon ngirum boroomam te taal na ci réew mi taal bu dul fay ci duniyaa mu seefu la gis kemam cay mu boroomam dëhër ba ni këng nooy ba nemm cig wet taxam njàmbaar gu tar taragal boroomam wayaf ba ni toy yu diis ba gann cig wet lewet ba ni domm saf-sap ak boroomam sawartale fog te yaatu te xir te ngor di tab budul jeele lum xam jox boroomam rafet jëf saf xorom du waxaa tereehul bari teggin ci ku mu gis ngir boroomam du xej jëkki seen du ay bokkam du jaambur ku ñëw mu teral di la nga xam boroomam du boddi du ñax du janne du xotti saatir dalay yaatal xafal la nga mel ne doomam du boddi du ñax du janne du xotti saatir dalay yaatal xëfal la nga mel ni doomam du matte du jëw du xool warul te siisul du romme du mer du xul ci lu dul boroomam du xaste du dóore ñàkkul bay fayantoo du dog war maaki bokkam mbaa boroomam du fàtte du fecci wul lëre mës la war nit du xat du naagu yërmande ngir boroomam du bew du baajan du day waaroo kawaare du jekk di fakki maasam ngir boroomam du reetaa du farfar loo du sut du yàqu der du tas ngir boroomam da xam ji waa koy yoon la làmboo mënee lim ngëneelam yéeg boroomam fu nuy raa seeti waajuy mel ne mi mbër woyof na ci kaw ta diis na ci biir boroomam fu nuy raa seeti jant bu dem ci njolloor te leeral yépp gox di kennul boroomam fu nuy raa seeti waajoo xam ne buy wax ku nekk di lux di làkk ku dul boroomam fu nu yiraa seeti kog bu jugaa du geesoo di romb dërëm ya jëm ci mbirum boroomam fu nu yiraa seeti kuy fab alxuraan ji di def ci taax di taalif ngir boroomam fu nu yiraa seeti kuy gis ahlu badrin di xandak ñoom te dëkkaaleeg boroomam fu nuy raafeeti waajoo xam ne buy way xaraf mu def xaras di ca big boroomam fu nuy raafeeti waajoo xam ne fu mu teew ku wopp mu faj ku dee mu yëggal boroomam ku bañ bi xut bu bay raafi moroomam du gis bu ni mel ci ji jamonoy boroomam gisee fu ko won ca gaaya weyun ca baawoon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 tasaatku mel ne sayxi ibra faati wa ahmadu ndumbe ak lampu boromam tasaatku mel ne sayxi abdurahman ko juddu ci mbàkke moo la xamal boromam tasaatku làq jaglek siidi muxtaar ka dem ba si yaari moo ki doomam te seexal kem li Seex Bamba seexal te sellal seeni xol ba ñu xam boromam te sàkkal leeni mbooloo faw yuy jëf te tàggat leen ba duñ mën a may boromam te kat na saxal liggéeyal ngeen ji yónneen te bum tere mooy taxaw fara tey boromam te dootu neelaw te day daw soxna yam xam di daw seytaane tey wéet boroomam te bu mu yokkat te bu mu jinnal la muy jëf te bu mu tal ci jëf na ragal boroomam te bu mu diingat sa te bu mu fayantoo te bu mu bég ngir ku gottil moroomam te bu mu diingat sëriñ sa te bu mu fayantoo te bu mu ngir ku gottil moroomam te bu mu xas nit te bu mu jëw bu mu fen bu dogub bokk ak moroomam te kan na saxal jihaari bakkan ci yónneen te muñ ti sang na xar taragal boroomam te day xam mbooti xol xam baatinam nit di saafara rag ji di xalam moroomam te bu mu leeka xaaye ci wàllu bakkan di woote ci kaw te biir ba gisul boroomam li ngay liñ doy na yow muusa taxawlul ba tey jotagoo lu mat asa kay boroomam li ngay liñ doy na yow muusa taxawlul ba tey jotagoo lu mat boroomam ku dégg ñu jàng way wile ma ñaanal ma xam ngërëmam te sax fu ba xam boroomam te def géwalam bu koy way feeg ba may dee te wax juma wax mu saf ko te saf boroomam ku bëgg di mbër melay Bàmba ngi seetal ku mel nii mooy donoy xut ba boroomam ku bëgg di mbër meloy bamba ngi seetal ku mel ni mooy doonay xul ba boroomam allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimi ahmadul xadim wa ummati wa salama tasliman ah jërë ngeen jëf mbokk yi kon lii boroomam la bu maam Cheikh Moussa Ka yàlla nañu ko fayal Eh, ki ko doon jàng di seen xarit Abdul Xaadir Buso waaye def ko ci ndigalul xaritam soppeen ku baax lool te bëgg sëriñ Tuubaa lool te léppam di sëriñ bi muy sëriñ Abu Mbàkke Basmor eh, ñu ngi ko def tey jii nag yemoo lundi le 7 octobre 2019 ñu ngi ñaan ku ko déglu yàlla na yàlla defal la sànq daal di ne barke Xaadim Mustafaa alhamdulilahi rabbil alamin